loo xam ne du jógee ci réew mi mu di nara yeew fitna seen xel day jëm ci yéen ustaas yi ak imaam yi moo tax euh, am loo xam ne dañ koy bind gis nga taarixu Sénégal dañ koy bind jamono yi amoon na fi coow coow li demoon na ba am ngeen ci euh, loo xam ne ci côté man ni ma ko mën a waxee diggante tarixa dëkk ñaari kër ak kër demoon na ba coow amoon na ci coow loolu nan ngeen ci mujj ak nu ngeen mujj fay ko ndax genre yu mel noonu du am mën naa dem ba indi yeneen coow yoo xam jur fi waaw xam nga ñun ñoo ne dañoo bëgg bind suñu démb suñu démb nag ñaar la or oral bi muy verbal bi ak biñ bëgg bind oral bee fi nekkoon ñu koy waxante kuñ ciy wax fi sa maam jaar mu neex lool ba nga làmb sa pos mu des nag ñu bëgg ko bind est-ce que buñ ko bëggee bind dana mel ni dana écrit bi dana mel ni oral bi yaakaaruma ko kon ñol-ñol ji mënoon naa ñàkk bu dara feeñee nga gis ni li d'accord ci nga dem ci commission bi ko war ne ko lii kat nii la tëddee ñu tëddee ñu corriger bu dee ñuy corriger ñu wax bu dee lu ñu waxtaanee ñu jàll su ko su ko defee jàmm ne ñooy loolu la. am réew boo bëggee bind démbam ti yeex ko bind. ah loolu si nekk mën na ci am waaye loolu du dara du réeroo yu yu war a am solo mooy rek gis naa ne lii diñ ko bind du noonu demal ca commission ba demal ci chef bi jiite jiite liggéey bi nga ne ko liñ ma bindal di noonu danaa ko wax suñu bàkk si la. danaan ko suñ bind suñ ñëwoon càlle daan ne la njóore balla xuma ñu jaawale leen ba xamuñ ci ñaari la yooyu ku ci jur sama yaay man damay ñëw ne ko la sàng moo jur sama yaay ñu continuer ñu dem loolu rek la jërëjëf ci laaj bi am solo bi jërëjëf am na solo donte du ma tudd tur coow li gis nga bi mu baree am na ci koo xam ne suñu xel ñëpp xel ñëpp dem na ba moom lañ gën a joxoñ seetlu nañu ba léegi mënumaa tudd tur ndax kooku saa bu jógee du waxee rek dañuy foog ne peut-être mbaa ñenn ñi dañuy yaakaar ne moom moo leen ëpp njàng soit mbaa moo leen ëpp maqaama mbaa martaba lan mooy waral loolu ndax du waxee kenn du bëgg a wax ci ginnaaw euh, xam-xam daal moom ñëpp a ko bokk yàlla it joxul ñëpp lépp xam-xam ko bokk yàlla joxul kenn lépp bu nu boole lim jox lépp nee na tuuti la nee na bu ñu boole ñun ñëpp lim ñu jox tuuti la waxut lim jox Saalum Sall tuuti la wala Oustaz Mor Khoudia wala Oustaz Mor Thiam wala déedéet daf ne li ma leen jox wa maa uutiitum min al ilmi illaa qalila ginnaaw lim jox lépp nag tuuti la nun nan def na Cheikh Al daal jàngale ñu ne xam ne doomi soxna yi leen ñu ne mu ne xam-xam bi ngeen di jàng li ci ñëw ci yéen tuuti la tuuti jooju tuuti ngeen ci jàng tuuti jooju ngeen jàng tuuti ngeen ci dégg li ngeen ci dégg tuuti ngeen ci jëfe li ngeen ci jëfe tuutee ci sell te xam leen ba xam yàlla na gën a koom déet kon ku ko teg foofu am na yoo xam ne doo ci dugg doo ci dem jërëjëf ci laaj ba am solo bi damay am fu ma jeexale balaa ma tëj samay question sa diggante ak euh, Ahmed Khalifa euh, Niass bëggoon naa xam diggante ñaari borom xam-xam rek ñoo xam ne kenn ki moo raw kenn ki waaw loolu rek la comme ñoom suñu doomi sëriñ lañu suñuy sëriñ lañu nu nekk seen taalibe du nu corrigé ba nu mer du nu corrigé ba mu naqari nu mukk loolu la nu yàlla binde loolu mooy suñu relation ak moom fan ko gisee jox ko loxo jox ko cëru mag ñi nga xam ne ñoo ko meññ ak fa mu bokk jamono ñooy. jërëjëf. xanaa hmm. oustaz lu muy tàggatoo ak euh, ko doon seetaan di koy déglu ci 221 li may tàggoo tàggatoo mooy li ma tàmbalee woon mooy temps dafa seer boo ci toogee quelques minutes di seetaan nit ba nga duma la nga di ko déglu boo sañoon am lu lay jariñ ñun tam dañoo bëggoon li ñuy wax nii lu mu gàtt gàtt mu jariñ ñu jariñ ñu koy seetaan lu jub ci wax ji sunu borom moo ko jubal. lu si jubut du ma man mii la di leen ñaanal yéen di leen jaajëfal ba site bi gën a soqaliku gën a yaatu gën a daj fépp bu fekkee ay sponsor am na ci ñëpp ñëw sponsorisé ko ndax dina tax mu gën a am njëriñ dina tax mu gën a yaatu dina tax mu gën a mu gën a euh, rafet gën a jekk yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def ci sunuy poos dara in uridu illa islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.